voilà jërë ngeen amis téléspectateurs de la TSTV tout un plaisir ñu euh, le ak à ni ñu koy tous les jeudis de 21h à 22h une émission face au monde alors on a le plaisir aussi euh, tey jii euh, la beneen de daanaan dem qui ci département bu Tivaouane ci commune bu Ngaye de fekk fa la gox bi Maguette Wade lay mom lañu am mbégte tay fas yéene ànd ak moom ñu fàttali né euh modi jaraf bu commune bu mexé euh, euh nek nak ci deuxième mandaam 2014 lañ ko fal euh, ci ci bop commune bi euh, mu ñëwaat benen élection ñu tabat ko ci bop commune bi mom nak universitaire la prof de professeur le docteur en lettres université Cheikh Anta Diop bu bu Dakar mais également bindna na euh, ñaari livre bi ci nak euh, euh, Damel du Cayor vie de combat de Néros sénégalais xamna né dinañ ci dinañ ci amna benen livre bo xamné également dal dina koy khatim gis également ci ay ci réalisation ci commune bu dinañ ci dinañ ci itam ci émission bi également dayo commune bu mel itam ci lu soxal actualité politique politique tey la alxames xam ngeen ne euh, ca pencum ndaw réew mi di assemblée nationale député yi tey jii dañ leen fa woowoon ginnaaw bi nga xam ne président de la république euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sàkku ci projet de loi ngir euh, daal di dakkal yenn ci ay institutions yu ci melni ni euh, au conseil des collectivités territoriales benen ba ci dess mu di euh, conseil économique social et environnemental mu di ay institutions yo xamné euh mom japp na ne xëy euh, dougal nañ ci copar ga ñu say dugal xëy na am na feneen foo xam ne moo gën a askanu Sénégal tax lu ni mel mu dal di koy sàkku ginnaaw bu mu nekké promesse promesse électorale yoy yep dinañ ci ñew dinañ ci ñew ci walu justice waxtaanee ko. Euh, ñeenti weer ba leen gannaaw assise de la justice nga xamné jaar na fi euh, rapport bañu jébal président de la république euh, la ñeël sax jëm ci réduction des comptes ndax ay rapport yu fi jaar ko waxtaan ak monsieur le maire ci itam mënut ñak ñu ci ciowlu ci bari décision yi nga les autorités également nañ ko ci fan bu ni mel monsieur le tout un plaisir Euh, ma nuyu la nuyu waa Ngaye Mékhé nuyu la département de euh, de Tivaouane ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. jërëjëf mais avant ma nuyoog yi ma nuyu la aussi sant la ci dalal bi nga ma dalal di wax Teranga TV euh, ñoo ngi koy dalal aussi di dalal seen téléspectateurs yi parce que ñoo ngi lay invité nga leen ñu nuy xool. mais ma bëggoon rek yokk tuuti parce que nit itam bu toogee bala moo wax nga xam ko bu baax def nga présentation baax mais dañu bëgg wax ni évidemment ci doctorat lettres la commencé UCAD waaye nag euh, suñu gëstoo tam ñu yokk ko ci banque africaine fa nous ñu directeur de la communication et des relations extérieures de développement à Abidjan ak Tunis avant loolu tam ñu nekkoon secrétaire général des institutions africaines de financement du développement mais loolu tam pour nga nekk ko xam nga di nga yokk ci xam-xam bi nga xam ni mooy sa base leneen muy euh, gestion des projets le MDP yu ñu def ci biir banque bi ak HEC euh, Montréal def ko aussi ak euh, Cranfield ci leadership mais aussi man ma defal sama bopp ci Robert Kennedy College collège gestion des entreprises et donc ak yu ñu jàng ci finance donc loolu moo tax yàlla may ñu li nga wax universitaire mooy nga am benn laytaay bu xaw a yaatu ci xam-xam bu ci nekk donc loolu ñu koy sante yàlla nag ñëw nag tey wax ni waxtaan bi dafa am maanaa parce que Sénégal dafa am fu mu toll ñu nekk aussi jëwriñ ci ab dëkk muy Ngaye Mékhé Ngaye Mékhé moom ku ko xamul itam dégg nga ko ndax euh, day dëkk cosaan bu yàgg nekk dëkk boo xam ni dafa am tëraay ngay bu bu bu rafet ci Sénégal muy stratégie Euh, yàlla def ñu fa ñu nekk fa maire en 2014 2022 euh, ñu ñëwaat waa dëkk bi yëpp. unanimement wóoluwaat ñu bureau yëpp ñu gañee ko ñu jox ñu ko. Ah, bureau yëpp ñoo gagné 27 27 27 bureau sur 27. moo tax léeg-léeg ñuy wax maire 27 sur 27. <laughs> mais loolu nag jëlewuñu ko pour ndam bàkkoowuñu ko mais dañu wax ni loolu dañoo gën a sasaat parce que lanu lanu defoon ba nit ñi ñu jox ñu loolu danoo waraat fi ñu jëmaat. ñu jox leen lu ëpp lañ leen joxoon kon loolu sos la mais nag lu nu jël la ak euh, humilité ndax bu ñuy jógee banque africaine aussi ñun ñoo bàyyil suñu bopp mu dama ko faa bàyyi ngir ñëw pour sama askan parce que bool d' abord kenn du ko ñëdd mais trangatam fa nga dëkk mais aussi boo demee ba li ngay def nga koy defal afrique yépp euh, ñu ciy gis seen bopp yow sa dëkk di dellu ginnaaw da ngaa war a summi sa tubay ngembuwaat dem liggéeyal sa dëkk ak sa askan loolu mooy li ma def. jërëjëf am na solo en tout cas am nañu mbégte euh, seq ak waxtaan borom xam-xam bu mel ni yow euh, ci euh, macha allah parcours bu exceptionnel bi nga xam ne donc donc jaar nga fi alors fi ñu tàmbali waxtaan bi gis nga tey xew assemblée nationale. Euh, président de la république euh, a ci euh, promesse électorale yi sax ay institution budgétivore la yo da fay des ne té également des fenen fu askan wi ko mel fay tax mu lu ci euh, conseil économique social et environnemental au conseil des collectivités territoriales ñaari institution yu ni mel euh, projet de loi assemblée nationale ngir ñu supprimer alors euh, rafetlu nga ko promesse boo xam ne xëy na yaa ko waxoon tey facile, ne nga koo

Amadou Bala Parce supporté. supporté que gagné na gagné bu leer nañ nekkuma ci opposition également beaucoup gagné monde Amadou donc l'autre il faut analyse donc nous avons un programme politique wax ni ñun gis nañ institution yi fay lekk xaliss amul du aussi comme man. ak euh, Macky Sall dajalewaat len ko parce que yak la xam nga kon loolu appréciation la agent de financement yi rek waaw dafa bari waaw dafa bari oh, loolu man bama ma ci sen bir mhm. man joxe na xal bob te pourtant nekuma won opposition kon ñoom itam biñ ñu programme wax ni ñun pour ñu développer Sénégal li lu ñu ni moy indi rationalisation ñoom bu ñu demee ba jël nguur itam ci loolu la ko nit ci doxal mais est-ce que loolu méngoo na ak li nga xam ni dina bloqué réew mi dox am dina yokk réew mi dox donc loolu mënoo leen a wax nii du ngeen ko def mënoo leen a wax di nga ko def ñoom ñoo am seen appréciation boobu léegi nag mais loolu dafa am procédure boo xam ni mooy mën a indi ñu def loolu. assemblée na na ko woote ou bien ñu dem référendum léegi nag ña fa nekk ñoom ñoo war a apprécier ba xam dañu koy def am duñ ko def mais citoyen ordinaire. bu ko indi won référendum mom dina joxe point de vue donc tay mënuma la wax ni loolu yelloo ak sen doxaline ak sen programme mais est-ce que yelloo ak li waram bon ñun nekku ñu ci pouvoir bi ki nek ci pouvoir bi mo meuna apprécier ni muy doxale pouvoir am. mais nan nga gisee doxalinu institution yu ni mel euh, CES donte ne nañu ay kangam a fa nekkoon ay expert ci domaine yu bari. Euh, ben tribune consultatif la boo xam ne xëy na yenn ponk yu bari ci doxalin réew mi ñu ko fa doon waxtaanee est-ce que dindi fa yu mel noonu également euh, dina dina dina doon njëriñu réew mi. wa mais xam nga conseil économique et social dou la première fois ñu supprimer ko fi donc def nañ ko fi defaat ko fi donc euh, ku ñëw appréciation bi ngay am d'abord est-ce que am na njëriñ est-ce que efficacité opérationnelle bi ma ci doon xaar en tant que président am na ko est-ce que Khalis boo fay dépenser Mengone ak lan fa tooge est-ce que Khalis boobu ñu fay dépenser gën ko soxla parce que ay appréciation là, mais du question nit ak euh, supprimer dara pour bañ ko aujourd'hui euh, ña fa nekk am ay ñuy liggéey amna ay points yo xamni c'est positif parce que conseil économique social bokk na ci luy renforcer démocratie bu fekkee dox na na mu war parce que aussi bu ñu xol rek euh, fruit bi ñor nous xool garab gi nous nga ko sampe ba mu egg vous lu tax fruit bi weex te waroon na saf sucre baa mu saf suukar te waroon na donc il y a tout un processus qu'il faudrait analyser pour en arriver là mais aujourd'hui moi euh, je ne peux pas dire ils ont raison ils ont tort man fi ma leen di xaar programme bi ñu proposé pour euh, sortir sénégalais yi ci jafe-jafe pour améliorer conditions de vie pour indi développement Sénégal pour atteindre objectif que ñu fixé ndax mën nañ ko am déet mais ki ci nekk nag mënoo ko ni. yaakaar am na ci diiraa ñeenti weer. ci ci li nga wax nii waaw ñeenti weer kenn mënu ci. xëy na mënuñu sax pro euh, natt mais yaakaar xel xel dalee na waaw wala déet. soo gisee ma préciser départ bi que man faruma Pastef mhm. c'est-à-dire que parce que boo nangoo dëgg d'abord li nit ñi war a nangu mooy suñ la gañee da ngay xam ni gañe nan la parce que li fi xew révolution la donc léegi le le baromètre c'est le peuple. le peuple a dit ñii leen wóolu ñoom ñoo gañe ñoom itam la ñu waxoon timing bi ñu joxe woon war nañoo fexe góorgóorlu ba nekk ci timing boobu mais aujourd'hui mënoo leen a wax ci ñeenti weer aussi ñeenti weer quand même le temps de faire les audits bon parce que quand même man bu ma nekkee maire ñu jox ma mairie bi mais damay xool ki fi nekkoon nu mu fi toogee ak ak signaler, may signaloo passation de service est-ce que conforme na donc loolu kenn mënu leen ci blâmer il faut ñu def ko mais nag li ma leen di wax mooy bu mu yéex parce que mënoo aussi di def audit di def révision des procédures di xool la transparence gouvernance bi mu jëm ci ay weer yu bari parce que amoo jot mais loolu mënta ñàkk maintenant ñeenti weer est-ce que lañu waxoon ci ñeenti weer ci seen programme méngoo na ak li ñu defagul moo des na lu bari. Mhm. parce que aussi soo nekkagul ci pouvoir ak lecture bi un am ci pouvoir bon excès di nga am yeneen goulot d'étranglement dire itam ni mu joxee parce que am na ay problème parce que il y a un pacte de Cap Manuel il y a arrangement mais aujourd'hui on a vu que même nous li ñu hérité situation économique wu réew mais bu y a un déséquilibre euh, financier Nous xam nous na toog ay at pour nous stabiliser il y a ñëw jël nguur nous en un an de ko donc pour réunir, normal malgré le pétrole le gaz il faut nous dire a ab régler les questions parce que du pétrole bi on enrichir du pétrole bi moy renforcer notre capacité budgétaire du pétrole bi mooy euh, renforcer notre capacité d'équilibre euh, et de de financier et de résilience donc il faut nous, nous, dem dank mais aussi nous opposer ou pour opposer euh, ça ne sert à rien parce que li am manam moy suñu rew nan la parce que Sénégal day def deux pas en avant def quatre pas en arrière aujourd'hui nous avons les atouts pour être un pays leader en, Afrique. Nous, nous, l'étions. Ce, n'est même pas le pétrole. Nous avons des, ressources humaines de qualité. Parce que nous est important. Des ressources humaines de qualité. Nous avons une position géostratégique unique euh, au Sénégal. Nous avons une tradition. Nous avons une stabilité. Nous avons maintenant des ressources, comme toute l'Afrique d'ailleurs. Bon, demain, Congo, nous pas des ressources fauves mais le, pays baigne dans, parfois dans de l'instabilité. Donc je pense que on doit être sénégalais d'abord et voir que l'intérêt, c'est le Sénégal. Mais aujourd'hui, le Sénégal est à la merci des politiciens. C'est-à-dire qu'il faut que man Ngour, qui Ngour, quand on va nommer, les mercredis, on attend les nominations, mais un pays ne se construit pas comme ça. D'accord. Mais, mais là, nous euh, que euh, cette assemblée, euh, étant donné que il n'y a pas une majorité absolue du côté ni fi au pouvoir le Berno Bok Yakar. Il euh, a am équilibre à l'assemblée à l'assemblée nationale euh, ndax cette assemblée là il euh, continuer à accepter le président de la république Moi, je nga le Sénégal a la à 54 Il y a am que proposition de loi nationale dafa faire, une lettre à la poste est-ce que eh, eh, parce que supprimer les institutions yoo xam ne seen ay nit la ñu qui na ñoom ñoo fa muy ak au conseil est-ce que l'on aussi dit. non l'on xel xel xel nangu ko parce que mais la majorité était relative Ce n'était pas une majorité mécanique autour de 80 su ñenn ñi euh, il peut avoir la loi peut passer parce que politique aussi le politicien n'est pas, certains politiciens ne sont pas au service du peuple véritablement. Et aujourd'hui, si les gens sont des républicains, sont au service des populations, ils font analyse. Parce que, ils supprimer, suppriment supprimer. Pourquoi vous voulez qu'on supprime Vous faites une analyse, vous faites une présentation. Vous dites, li motax, li li li. Les gens en âme et conscience, moi, apprécié. Mais si nous les préjugés, les préjugés sont défavorables à l'appréciation ou à l'approbation de cette, euh, de cette proposition. Parce que si nous regardons sur le plan politique, nous nous fatiguons. C'est ni morom d'un tek fofu. Donc là, c'est une lecture politique. Alors que lecture nous a moi, waouh yen, li wax ngeen ni day broker rew mi. Lan nan nga def sa présentation, ñu ni ah ki wax ngeen deug ah. Mais bu boba, di nga gis ko xamni même rakam man na nek fenen ba papam. Mais il va dire on vote ça, il faut l'enlever. Fi nous toll ni parce que à chaque institutions sont entaillées dans le processus du développement. D'accord. alors je euh, ne benn laaj pour vous ci euh, mbiru assemblée nationale euh, Moi, monsieur le maire en tant que leader de cette coalition Takulige et Sénégal vous êtes le leader de cette coalition. da d'accord ci wala da nga jëm ci vers une dissolution de l'Assemblée nationale. tax déjà ngeen bëgg taxawal cette coalition pour dem euh, fas am ay représentants pourquoi pas même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale euh, lan motax qui ci instant bi ci moment bi monsieur le maire ngeen cette coalition pour dem élection législative est-ce que ngeen sommes ne dañu jëm vers une dissolution wala dissolution l'Assemblée nationale lu la ci jamono ji voilà nous sommes dans une lecture prospective il faut apprécier aujourd'hui tok ni apprécier par rapport à la prospective du futur lire le présent critique am une analyse si li xew. nous sommes des des analystes nous sommes des nous sommes des des des des hommes de développement donc da ngay am lecture c'est beaucoup plus probable ñu dissoudre l'assemblée bi que ñu bàyyi ko mu continue mm-hmm. oui parce que un donc ci li ñu jëm ni tay bu fekkente ni voie référendaire leen jëm ba nit ñi voté wuñ ko ça veut dire que Pastef te dérouler programme parce que programme dissolution institution yooyu da cee bokk kon bu fekkente ni assemblée bi voté wu ko mooy li ci mën am rek mooy ñu dissoudre parlement bi beneen bi mooy soo amul parlement bu mën a voté ay projet de loi yoo xam ni nekk na en conformité ak sa programme de développement sa programme politique mais il faut nga wuti ko donc loolu ñun on a li ñu jàpp mooy parlement bi ñu dissoudre ko moo gën a fés moo gën a jaar yoon moo gën a leer ci sunu bopp que ñu bayiko ko parce que bu fi nekkee mooy euh, lu ñuy wax nga am benn seet diko pat pat yoy di pat di pat bo liggéey nga waxtaan ak ñi waxtaan ak ñi mais amna risque itam man nga dem do am majorité en ce moment il y aura partage du pouvoir comme ça s'est passé en France et cetera et ailleurs Maintenant, donc en ce moment le premier ministre sera de l'opposition légui nag yow yaa yaay nat sa bop xam sa bop et sa bo yaakaaree ni paré nga dal xamna ni ñom ñun li wax japp moy ñom suñu paré su su leen wër ñoom pare nañ dañuy dissoudre parlement suñu ko dissoudre mooy pare wuñ ñun nag li ñuy wax mooy. takku liggéey pare ngeen. takku liggéey ñun ñoo ngi pare parce que li ñu wax pourquoi ñu def takku liggéey mooy parlement bi mhm. ñun parlement bi ni mu tëdd ak ni ñu koy deux doyuñu. ah bon ah comme doyuñu parlement yi doyuñu c'est-à-dire parlement warul dafa war a quelque chose au service de l'État au service des populations au service de la République au service de la justice sociale et économique dañoo war a am ñoo xam ni dañuy toog mais gis nañ li fi xawoon ci parlement yi fii ñun gisewul noonu parlement dañoo bëgg un parlement de qualité ak des hommes de qualité qui ont les mains propres qui savent ce que c'est véritablement une gouvernance et qui ont des aptitudes responsables par rapport mais est-ce que mode d'élection bi mën na tax ngeen egg ci ressources humaines de qualité boobu à l'Assemblée nationale mooy ñoo xam ne bu ñu demee Assemblée nationale véritablement dañuy nekk ay républicains jouer le rôle bi ñu war a jouer en tant que député mais bu fekkee c'est des listes c'est le chef de parti le chef de la coalition qui décide quand moo ci beaucoup mu am liste nationale yoy aussi est-ce que dinga am cette indépendance pour demee à l'Assemblée nationale. non xam nga peuple bi il faut qu'on qu'on réveille le peuple il faut nous ñu éveiller les, réveiller les, pour que nous am lecture ci parlement parce que xam nga le le la waxul parlement bi lan moy liggéeyam tay dañ mais ça c'est pas juste mais la justice découle des projets de loi il faut des textes, il faut de la législation, il faut qu'on légifère pour que dans l'application des, lois, que la justice puisse se refléter. Donc justice, mais tout ça, c'est le Parlement. Développement économique, pauvreté, c'est le Parlement. La mobilisation des ressources, c'est le Parlement. Les multiples institutions qui se clashent, c'est le Parlement. La gouvernance, c'est le Parlement. Mais il faut donc du Parlement, nous savons que c'est pas pour s'enrichir, c'est pas pour mourir mais c'est pour travailler pour régler les problèmes de la société Quand on ñun ñu troisième voie on appelle troisième voie la possibilité de ci opposition nekkuñ ci pouvoir li notre parti notre pouvoir et notre opposition c'est le peuple Nous avons un groupe parlementaire de contribution Vous avez un groupe parlementaire mais vous avez un loxo loolu de contribution Si waaw faisons un projet de loi nous ñu analyser ko c'est juste ñu ñu bu ko opposition bi li ñuy wax opposition ñëw indi benn projet de loi ñu xool ko analyse ni lii juste mais àndul ak nguur gi ñu jàppale ko mais bu ñu xoolee ñoom ñaar ñëpp ku nekk li mu fi joxe juste ñu su naka ngeen di tànnee député yooyu ci seen biir coalition bi parce que ay parti politique ñoo koy composé ay ay mouvement euh, ay personnes indépendantes également naka ngeen di tànnee ñi ngeen di dugal seen liste au sein de votre coalition pour quand même euh, ni ngeen ko mbëbëtee quand même bu ngeen demee ci assemblée nationale aussi. parce que waaw bon loolu actuellement nii.

Donc, nous maintenant, il y en a des milliers dans ce pays, mais pas des technocrates, des politiciens. Il y a des partis présidentielle. élection présidentielle, parrainage, mais des gens intègres, ils sont venus avec nous. Ils ont gens ils ont été battus, nous Mais nous sommes en opposition, nous radicales. Nous pouvoir, nous sommes Nous pouvoir. nous ñun nous Nous tax ñu nous troisième fois nous mais nous nous jël ni xam ni amoo dara lu lay reproche boo gisee politiciens ñi ma wun a dugg ci réseaux sociaux yi ñu ma mais ku ci nekk su ci traîne des casseroles mais ñi ma woo exposé wu devant le peuple ku ci wóolu sa bopp xam ni jub nga jubal nga set nga transparent nga nit ñi gëm nañ la demal sa département nga taxaw. est-ce que du loolu mooy justifier le silence de ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi depuis élection ba léegi dégguñu leen euh, yàq ay benn benn ay Bougane ngay dégg ay Thierno Bocoum mais nous ngi alors que ku ci melni Amadou Ba nga soutenir ko ci élection présidentielle ba légui dégg guñu ko mu prononcé wu yu bari xewna fi mais oh. dégg ko xam nga man xam nga man bi may ñew man bi may mu politique damay e bi nu koy Paris nga donc moi c'est le PC e qui m'a fait rentrer parce que gëmoon naa mais bi nu ñewé bi nu démé ñun suñu groupe ñuy dem di politique mais ñun à deux jours ou trois des élections on ni gagné dañu dañuy parce que on a apprécié le pouls de la population et du peuple mais bon, c'est une révolution qui va se passer ce ne sera pas des élections donc si nous paree bi ñu waxee ni président bi lâché na ay parce que moi, xamoon nañ day perte ak mais c'est son droit Moi, je xam pas tax mu Amadouba est parti mais moi le lendemain man ne njëkk pas bind wax ni le lendemain parce que j'ai fait une lecture

ñi toog ni nem ak ñi tooy ak ñi seen laaf tooy ñoom ñoo xam lu ñu def ak ñun daal on est là. réduction des comptes. mais il faut la réduction des comptes. lu war a am la. ah oui il faut la réduction des comptes. gars yi ngi yuuxu ne mbir mi yéex na. non non mënta gaaw parce que il faut que ñi nu nommé ñu ñëw xool ñu def passation de service ñu def les audits les audits booy gérer deux mois yu nekk da nga war a def audit un mois bu ne mais yow fii ne war na ñëw sax audit yi même boobu moo sa affaire mais audit lan la c'est contrôle dafa am contrôle de gestion c'est régulier mais audit moy xool rek ba xam li ngay def conforme na ak li nga waron def donc je pense que la réduction des comptes est inéluctable ku nek la nga gérer tu dois rendre compte c'est ça c'est langage mais nit même boo politique tu dois rendre compte donc réduction des comptes c'est pas de la répression légui nak ki nga xam ni doxal na li nga xam war ko won doxal mais loolu mom la engagé pourquoi mu doxal par erreur la ko defee am moo ko tey mais xaalisu askan kuko ku ko lekk da ngaa war a rendre compte ku ko lekk da nga ko war a delloo mhm. ça c'est mon point de vue personnel et j'ai toujours eu ce point de vue li may wax nii ñi ma àndaloon xam nañ ko moi j'ai pas j'ai jamais été dans ces grandes réunions ou ces ou ou, ces groupes moi j'ai dit il faut gérer bon on dit c'est un technocrate c'est un, haut fonctionnaire bon ça c'est pas important moi je suis un gars mecquois ngay moi, je vis avec des gens qui sont dans la pauvreté extrême. C'est moi qui ai écrit la Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté et j'ai proposé la réforme de la Banque africaine. ci ci réduction des comptes. Euh, euh, euh, am na ay xëy changement yo xamne magistrature def nañ ko ci magistrature Sénégal xeyna sax addu ci la question est-ce que le président fay dess ci au conseil de la magistrature wala du ci dess mais quand même ñoo xam euh fësoon nañu ci jamonoy 2021 mille vingt et un ci ciowal mbiru Ousmane Sonko yenn juge ñu ci doon euh, ñu bari ñu jël leen rek sandi euh, sandi euh, fi nga leen fi nga Tamba président de la République au conseil de la magistrature ba siège dafa du ci au conseil de la magistrature de la République question bu am importance moi je pense que sur des outils, am un programme il faut être conséquent avec le programme duma ma bokk bul bokk mais peut-être que dafa ñëw fekk ay réalité je ne l'excuse pas hein moom moo xam mais man je pense que su ma defee une feuille de route am un un plan d'action def benn lu ñuy wax vision euh, euh, vision statement def sa mission statement def sa programme quand même da ngay conforme ci loolu parce que do loo xam ne day jóge ci hasard da nga koy analyser donc boo nee du ma bokk xamoon nga lu tax analyse yi ngeen def lu tax doo bokk doo bokk mais dama bëgg a ñëw tuuti gis nga état waruñu sanctionné gis nga en Europe ministère yi sax fii da ngay nommé benn ministre mu ñëw gaa yëpp lay dàq indi ay gars yu bees conseiller CT secrétaire général ñiy stabiliser ministère yëpp nga dindi leen parce que àndu leen politiquement man boo ñëwee sama maire ay waa Pastef yi ñoo foo ëppoon ànduñu mais dàquma leen boo demee tey am na ñoo xam dama leen recruter ak ñeneen parce que sooy gérer li ngay soxla mooy technicité mooy savoir mooy expérience parce que soo jëlee ñoo xam ne ay politique rek lañu tu vas vers l'échec et loolu je dis au gouvernement France boo ñëwee ministère da ngay ñëw ak sa sa valise ak quelques gars dans le cabinet bàyyi gars yi ñu liggéey koo xam ne nag def na loo xam ne méngoowul ak li nga bëgg a def awel li nga bëgg nga dàq. d'où l'appel à la candidature est-ce que du génn li ngay. Euh, li parce que c'est des c'est des c'est des ay poste euh, militaire euh, militantisme lay doon yo xam nit ku nekk bu ñëwee say militant ngay andi. mais gaay dañ leen a tiital wax leen ni. bu ngeen defee appel à candidature doomu ñi fi newoon ño am diplôme yu bax yi ñom ñoo yal mais un diplôme taxul nga def interview jall diplôme man combien de fois j'étais dans des panels de très haut niveau pour interviewer ay gens yow man nga yor xam-xam bi mais ki man naa am expérience mais nit ki man naa am tey nit ki man naa am tenue avec une seule tenue par exemple euh, interview poste à déjeuner moi quand euh, j'ai fait l'interprète, le directeur de la communication du Fonds monétaire international Washington déjeuner ma à mm-hmm. ah oui pour savoir ah comment tu te tiens. non non c'est vrai mais war nga xam ni ngay une war nga xam ni ngay solo war nga am expérience war nga nekk nit ku équilibré war nga am certificat y a beaucoup beaucoup d'autres choses donc nit ñi loolu la leen tiitalee doomi gars yi dañuy jàll mais poste yëpp itam mënuñu def interview moi je pense et je l'ai écrit aussi quand il y a eu le clash avec la la presse moi j'ai dit mon point de vue indépendant j'ai dit j'ai écrit sur ma page Facebook que il faut éviter le mortal combat avec la presse

baa wax dara nga boole dëpp bëgg a xuloog moom ci ki bi ba yoy kenn ko def donc moi je pense ça c'est mon point de vue euh, le le le PM c'est son point de vue mais moi je donne ma lecture par rapport à ce que vous me posez benen bi magistrat yi même bu le magistrat bi contré mais man bu ñu boo ngay dañ nan maire ñi muy may ak ñi muy dimbali moy ñi ko doon saga rek ak ñi àndul ak mom bu du ñëwee mën leen dekk bi duñ ko pacho ñoo may deug dekk bi kenn ko pacho nous, n'avons pas et je pense que magistrat s'il est compétent s'il a été compétent mais nos nos structures de pouvoir yi de telle sorte que dañ lay dañ larbiniser en fait c'est-à-dire tu es un magistrat super brillant super compétent etc., mais pouvoir bi ni larbiniser on a l'impression que dans ce pays il faut être larbin pour avoir un poste il faut il faut un béni pour avoir un poste comme te nit ñi day jàng am xam-xam am capacité ressources, nek nit ñu diñ fu mais il faut accepter de l'harmoniser pour dial. il faut qu'on mette fin à ça moi j'aurais compris Bon, euh, bon Tambacounda bien sûr c'est le Sénégal hein tu t'amène à Djouloulou, c'est le Sénégal Quand t'amène à Ngaï Mékhé médecin c'est le Sénégal il faut aussi que nit en reverse dans le sens contraire comprennent que Sénégal du Dakar rek Sénégal du Thiès man Ngaye ma gënal fukki Dakar donc il faut que nit ñi comprennent yóbbu nañ pas non bu faites nag dañ dans l'esprit de les sanctionner c'est une mauvaise chose. alors euh, Berenbi, bi euh, Alioune euh, dit que président de la République avec son premier ministre c'est c'est c'est le premier ministre qui gouverne Rien le président de la République moom dañ ko confiner au palais mais les grandes décisions premier ministre Ousmane Sonko euh, évoqué que le président de la République doit démissionner parce que actuellement il gère rien c'est le premier ministre qui gère euh, débat beaucoup posé yo yow je pense que j'ai beaucoup de respect pour Aluna, hein, il est bien mais moi je pense que ça c'est des débats nous qui ne nous concernent pas ils ont gagné pour gouverner ils ñoo gagné ñuy ça c'est entre eux. le premier ministre il est le premier moi j'ai écrit euh, dès qu'ils ont pris le pouvoir qu'il faut faire un référendum et changer le système euh, présidentielle, pour faire euh, un système euh, où le Parlement, on va avoir un Premier ministre comme le Cap-Vert ou comme l'Éthiopie. parce que Bini Warnan, Sonko Moy Djoma et Sonko, Mougagné, il a dit Mais il faut faire un référendum pour changer le système et faire un système parlementaire et non pas un système présidentiel. on a un système présidentiel très fort. Oui, très fort. Mais... Et puis tout le monde parle des, des, des pouvoirs extra euh, extravagant, je dirais même pas extraordinaire, mais extravagant au président de la République. parlementaire, comme ça, Sonko, il gère. Est-ce que vous connaissez le nom du président de l'Éthiopie Vous connaissez le nom du président du Cap-Vert, Et pourtant, il est consulté. Donc, je pense qu'ils ont ce choix. Vous faites compte de mais peut-être que pour eux, s'ils sont confortables et qu'ils déroulent leur programme, mais ne pas. également, nous il faut appliquer les textes Si tu n'es qu'un, ko appliquer su ou bien nous réformer nous changer mais il faut respecter la loi c'est respecter et promouvoir un état de droit et promouvoir un bon développement c'est de respecter ce qu'on légifère mais mënoo on légifère, c'est ce qui s'est passé sur euh, euh, la modification du Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'une Bon, le donc, le règlement intérieur. Donc aujourd'hui, bon, le Premier ministre doit aller faire son discours de, politique générale. Est-ce que l'on a sa déclaration de politique générale en tant que Premier ministre euh, puisque moi orienté les actions du gouvernement, on dit quand même euh, cette proposition de loi pour dissoudre ces institutions ñenn ñi jàpp également premier ministre xeyna dafa diakar jàkkaarloo ak l'Assemblée nationale. Euh, non je ne crois je je je ne crois pas franchement je ne crois pas bon c'est bien parce que vous êtes à la vous avez la posture du journaliste c'est bien parce que li ñuy wax rek nga mën poser ñun tam ñu jox suñu xalaat. Mhm. mais mais mënoo le premier ministre naan da ngay ragal ay député et si le PASTEF a a eu le pouvoir mais le PASTEF a un programme ils ont ils ont eu un livre même sur leur programme mais le le discours Le euh, projet existe où ça existe que de nom non quand même ils ont ils ont ils ont le projet c'est ils ont ils ont les têtes un projet ils ont Il y a des partis qui sont allés aux élections présentes, ils n'ont aucun programme. aucun programme y compris même à l'époque les PDC. Hein. parce que c'est les déclarations de d'Addis Abeba ou de la CDAO ou ce qui était là avec ça qu'on qu'on tripote pour avoir un programme, c'est tout. Le PSC a été pensé par des Sénégalais, mais aussi par des étrangers, les Macintosh, McKinsey, euh, qui, ont travaillé sur ça avec d'autres experts sénégalais. Donc, même les bonnes intentions, en une semaine, ils ont des experts pour le transformer en projet. Donc, c'est véritablement, et ils l'ont, et je pense qu'à tout moment, ils peuvent venir faire. Peut-être que, les Grecs, je ne connais pas sa personnalité, est-ce que nous koy sonnal bon xana bo limu def sonnal kañ ba dem ba sa bakkan nek ci xottu gerte amatoo lu lay sonnal amu mon avis parce que quand même il a joué sa vie et il faut que nit ñi comprendre leen bon évidemment parfois on me dit da nga bëgg dem passer parce que dire la vérité et dire ce qu'on sent c'est pas vouloir parce que motax je précise toujours parce que ki nga xamni dem na ba nek diggante dund ak dee mais quand même ñeu ñu saaga ba c'est pas c'est pas c'est pas c'est des personnages publics moi je pense que je parle en tant qu'expert connaissant les projets également de développement sur les nerfs, fi mu a des gens qui ay kàngam 18 heures il peut faire un projet donc ce c'est pas véritablement le débat maintenant les gens disent est-ce que nous, bëgg moi je ne suis pas dans des est-ce que est-ce que moi j'apprécie le parlement pare ma apprécier le 14 il date bi nga deadline pour dissoudre bu dissoudre nous paraît. mais nous on est on est prêt à 45 d'accord ak à à 45 euh, mais si on une élection le pouvoir actuel vous fi une euh, alliance bëgg élection législative pour euh, mais l'Assemblée assemblée bi pas ma moi je suis je suis leader et je suis initiateur et je suis coordinateur et président. mais non nous dàq ñu mais mais nag kenn jël décision pour tout le monde parce que quand même ay ay góor lañu ay ay ay ay àndu nawle def. est-ce que mën nañ xam euh, ñan ñoo ci nekk pour le moment. Magatte Wade mi ngi au-delà de vous. oui mais il y en a plein d'autres Il y en a qui ont ne ñoo xam ne dañuy xaar Nous, ñu le parlement pour nous manifester Je ne nga pas Mais wax mais y a 25 25 yo xamni ay députés yo xamné amna non non pas peut-être Ben ou mais amna 25 personnes yo xam ku ci nek man nga nek président de la république du Sénégal 25. cinq ku ku ci nek rek ku ne ku ma ku ma ci won moy jitu pour être président rek ma ñew palais tàccu des gens crédibles des gens sérieux du lourd se prépare des gens qui ont de l'expérience ah ma du lourd se prépare ak takku liguey ah oui oui on est on est on est prêt on est prêt mm-hmm. on est prêt sur tous les plans on est prêt d'accord et et et et quand j'ai entendu et ay ñuy wax takku bon on n'a pas un copyright sur ça parce que notre assemblée et notre point de presse notre conférence de presse nous le ferons dès que la dissolution de l'assemblée est, prononcée et pour nous le probable maintenant on va regarder avec ces gens et on continue tout à l'heure j'ai un déjeuner encore avec un ténor ici donc euh, on a des gens qui sont là mais nous, nous et puis c'est des relais Nyong aussi ils ont des gens que je ne connais pas déjà et on a un pool un coordinateur dans chaque région dans chaque région il y a le coordinateur régional qui travaille déjà on a des think tanks on a des partis on a des leaders on a des représentants aux États-Unis en Italie en France qui ont représenté de grands mouvements et de grands partis et qui sont avec nous. d'accord je pense que li ñu de ci waxtu bariwul mais nous ñëw euh, te duñu euh, commune bu euh, ngaay bi nga xamné ya fay jaraf mais mais mën nañu xam euh, lan moy ce sa secret ak la commune bureau de vote nga ñëw deuxième mandat bureau de vote yi nek ci commune bi yépp 27 bureau de vote nga gagné bureau de vote yépp lan la lu xew sa diggante ak wa ngaay non c'est-à-dire loo defal wa ngaay ou bien lu wa ngaay def ba gis ci seen bop def ko mais parce que on avait une ville Ngaï est une commune de plein exercice en 1911. Nous étions la septième commune du Sénégal. Parce que l'autre ligne d'un faté. nous devons une commune rurale. Ngaï, en 1960, nous avons une usine de décorticage de l'arachide et une usine pour faire euh, cornilles qui des boutons. Mais Ngaï, est aussi la capitale économique du Cayor. Depuis la royauté. Motar, la royauté dans les années 1890, artisans migré à Ngaï ngay Nek, une capitale économique artisans yi ñëw fa et aujourd'hui Ngaï est la capitale nationale de l'artisanat du Sénégal. Je ci que poste ngay inviter le président de la République xëy na euh, mu ngi sol ay mais quand même il Ngaye Ngaye bu ko waxee non je dis. il doit répondre à cet appel le président de la République. il fait son effort mais nous continuer ne continuer. parce que Réoulol, mais que ce soit les grands khalifs, les les les marabouts mais le président le premier ministre nous ñëpp xam ngaay ah, le premier ministre il vient à Ngaye le le le président il porte des habits de Ngaye mais non... la mais man aujourd'hui je porte des chaussures de Ngaye xam nga bu ma solee costume bi dañ naan waaye kii mi ngi wax artisanat Ngaye ba costume le sol mais sama ma dali costume sax sénégalais ñu koy ñu mais mais sama dàll yi moo tax ma sol ko. sama dali

fofu laa jël dàll bi di ko sol pour vous leen ni waa Sénégal yëpp mën nañu di solo ngaay di sol dàllu ngaay di sol yëre ngaay et cetera président na gën a ci loolu maintenant dañu ñëw xool li ngaay soxla pour être une ville moderne au niveau de la santé léegi rek maa ngi ce matin on a reçu une salle de radiographie 5.0 qui est l'une des plus modernes du Sénégal radiographie te doomu ngaay moo ko jënd may ko dëkk bi on a fait l'hôpital Bofademe. Je leur dis, mon objectif, c'est que le centre de santé de Meké doit être Gaspard Camara ou Mamadou Diop. Les Grecs docteur avant On a quatre postes de santé dans la ville. On a fait le stade avec des projecteurs. Nous allons faire le tapis gazonné, le tapis synthétique, avant la fin de l'année ou premier trimestre. Nous avons clôturé tous les établissements. Nous avons trois collèges et un grand lycée. Pas d'abri provisoire. pas d'abri provisoire. Ah, bien ça. Tout le monde a accès à l'eau potable. Nous avons l'écosystème de tout ce qui est cuir, cordonnerie, l'abattoir. Nous sommes en train de faire le plus grand centre africain des métiers peau et cuir. Nous avons la tannerie végétale des femmes mortes. Nous avons euh, la maison de l'outil qu'on avait inaugurée en 2014 dès que j'ai accédé à, euh, la mairie. Nous avons euh, une coronerie moderne qu'on va ouvrir incessamment. Nous avons un nouveau marché aux poissons. Au niveau de la santé, donc de l'éducation, on a des laboratoires très modernes, ultra modernes que nous avons donnés. Nous avons la 4G, nous avons des jardins publics. à tous les niveaux, nous avons révolutionné. Nous avons les sapeurs-pompiers. Bon, bien sûr, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'État. Nous avons construit des routes. Nous, nous avons un hôtel qui est l'hôtel de la mairie. Nous avons construit une nouvelle mairie, etc. Donc, euh, euh, je ne peux même pas citer ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je leur dis... Par rapport à l'électrification rurale Non, nous, on n'a qu'une seule ville qui est Meké, électrifiée. Nous avons la ville éclairée. nous avons la ville la plus propre du Sénégal. Nous avons au moins deux tracteurs fonctionnels, deux qui sont en réparation. Nous sommes en train de construire la, seule décharge. Bon, évidemment, il y a Nguyen, la décharge normée au Sénégal avec la coopération française pour 1 milliard 500 millions. Donc ce sera l'une des décharges de référence en Afrique de l'Ouest, avec la coopération française. Nous sommes jumelés à la ville de saint gédé des vosges à la ville de Elmina à Noirchok pour prendre le cuir et leur donner notre savoir-faire. Nous sommes en discussion avec Aoud en Roumanie. Nous sommes en discussion avec Fez, où nous avons une convention de partenariat. Donc nous, on ne fait que travailler. Moi, je travaille tous les jours à la mairie. Je n'ai jamais pris de congé. Depuis 10 ans, je suis toujours au service de la mairie, au service de ma communauté, à mon service. Parce que l'IMAIDEF, c'est mon bon Et aujourd'hui, que nous aussi li tax dama nous ni population ni fudul na ngaay ku fi ku fi ni ma vision vision Amadou Ba ñeu ñëw gouverneur ni ma je souscris à la vision naa la jàppale. mais ma jàppale ko. waaw ah, loolu leer <laughs> jërëjëf amna né waxtu wi euh, jeex liñu euh, li ñu ponk ñu bëggoon a waxtaan yëpp bari na mais je pense que né euh, def nañ un peu le tour ci yenn question yi mais quand même li ci xana ëpp solo rek moy takku liggéey bi takku liggéey Sénégal mu nekk coalition bo xamné ci élection yi ñu dëgmal fas yéene taxaw jëmal bopam lool moy doon cadre bu mujj gi monsieur le maire. ci lool waaw ci takku liggéey Sénégal bobu dañu bëgg ñi ci bok ñëpp. Si vous ci municipal yi ku ci nekk yoraat takku liggéey sa dëkk ñun municipal takku liggéey ngaay mouvement. d'accord comme législatif ah non non non non non non on reste mais on est ouvert à toute discussion on est ouvert à toute discussion mais ah, il faut leur donner la possibilité de continuer parce que mënoo dem ci liste nga ñëwaat euh, municipal municipal yi il faut que aussi pouvoir bi municipal il faut que les les vaincus les anciens vaincus essaient de se repositionner ñoom li ma les partis sont affaiblis c'est du c'est du off maintenant ce qu'ils doivent faire c'est les mouvements et les valeurs intrinsèques des individus qui font gagner moo tax mën leen ñi nga xam ni crédibilité seen loxo set et c'est des gens qui se considèrent tout le monde se considère de qualité mais ku ñemee affronter peuple bi rek ci transparence on t'invite à takku au Sénégal. mais sante le bu sante jërëjëf euh, téléspectateurs mais di leen encourager. média xam nga bo bokay ci dara militaire day am solidarité de corps Bobo, bokay dara boy wax euh, ko lolou dotul dotul wax parce que moi je connais les tenants et les aboutissants et les contours parce que dama ci liguey lu yag au niveau international j'ai géré le plus grand bureau de communication de l'Afrique en termes de budget muy la banque africaine donc je tax ma xam les tenants ñun bi j'ai dit au à à au Makissal l'avenir c'est le digital mais on a été battu par le digital ils n'y croyaient pas c'est maintenant qu'ils y croient quand Sonko a gagné avec le digital ils y croient mais ils n'y croyaient pas donc nous, li wax il faut que nous renforcer moi je demande au premier ministre di faire fay taxi ku nekk li nga war fay say élèves da mais nous sommes nous mana renforcer ñu def ko subvention yi ñu critères de performance appui nous ñi gën les tuuti ñi gën parce qu'aujourd'hui, des télévisions on peut en faire mais il faut que nit ñi yeewu parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons au Sénégal que le passé fait, c'est que nit ñi yeewuñu leen ci li nga xam orientation développement moo tax ñu leen di encourager y nga y a di di jël seen i moyens di dem mais su leen kenn gungewul parce que il faut accompagner ba mu am doole di fay mais kuy togg bu ñoragul mënta yàqale donc il faut que ñu leen di yokkal sauce bi di ci def et ça c'est le rôle de l'État dans tous les pays qui ont eu à avoir des développements à partir du soft power comme la Chine la Corée etc mais dañ leen dañ leen di mais les pays développés l'Amérique la France ak mais dañu naan bu leen jox ay subventions à vos agriculteurs mais nous, sommes les premiers à subventionner les agriculteurs, parce que nous avons des PSG pour les ah, donc il faut faire des moratoires Qui va faire fay na mais moratoire le le ça ne sert à rien et c'est des gens qui ont une notoriété et qui sont sérieux et nous avons une presse sérieuse et nous avons des journalistes de qualité il faudrait nous accompagner L'Oldal moi il m'a may et ça c'est un message euh, plaidoyer que je fais à l'endroit du gouvernement parce que ce sont nos présidents, ce sont nos premiers ministres et ils sont là pour nous tous. Et on les invite à ça et je sais que c'est des gens qui sont réceptifs et nous les nous bon je rends hommage au président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar pour sa tenue sa retenue et sa capacité de, discernement aussi je rends hommage aussi au premier ministre Ousmane Sonko qui, s'est battu aussi. Parce que comme, il a de la combativité. Et je pense que si utilisait énergie bombe, il parlait. Mes camarades de, donc, du camp de ceux qui ont été battus, il faudrait que l'on accepte également les défaites. Parce que Mononi, il y a le pouvoir. yow nga yem pouvoir bi ni yàllaa ma ko may yow da nga ma nous ñaane mais nangu ko yàllaa ma ko jox keneen yàlla jox ko keneen nga bañal le pouvoir... donc il faut aussi nous nous leen et qu'on crée une famille bu match joxee bu football jotee ku nekk dem sol maillot ñu ñëwaat ci terrain bi kii gagné gagné et qu'il parle également à leurs militants moi à Meké, je ngaay Mexe man xawma ma kuy Pastef ak lu pas ils sont tous derrière c'est tous mes jeunes ce sont ay doomi ngaay avant ñu nekk ay Pastef. c'est vrai <laughs> jërëjëf merci mu nekkoon euh, monsieur le maire euh, Maguette Wade maire de la commune bu Ngaye Mexe euh, sant ko gërëm ko amoon mbégte àndoon ak moom ci ci waxtaan wi ñaanal la aussi borom bi sàmm la borom bi defal la tawféex it ci mboobeel mbooleem. mbébét yi ci ngaay mexe ak ci réewum Sénégal borom bi sotti lépp te lépp di di barke également mu wasaare ko ci àdduna wërngël këpp jaajëfal leen jox leen dig daj incha allah beneen euh, numéro face au monde jaa ngeen jëf.